Mamadou Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi nga nekk meunier de formation expert en meunier euh, déjà ngir xeex euh, dundu gu cher bi état wu Sénégal jël na ay mesures mesure bi wàññi baguette pain bi jëlee ko ci euh, cent soixante quinze yóbbu ko ci cent cinquante la def naka nga gisee déjà euh, bi mesure di jiital sant bi si suñu président Diomaye Diakhar Faye ak suñu premier ministre Ousmane Sonko ak ministre du commerce bi ak ministre ak directeur di commerce intérieur euh, def na si liggéey bu am solo boo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bi leen gërëm si mesure yi. kon gis nga ni mesure bi ñu mën nañ ko rafetlu gisoo ni prix bi liñ si wàññi dafa tuuti wala baax na. pour yow baax na bu fekkee dañoo wàllu jël wàllu mburum bu fekkee wàllu farine bi sama man la moom gën a maîtriser Euh, mesure bu baax la jàpp naa sax mënoon na gën a wàññeeku sax mais cent cinquante bi mu ko jaayee ñun ñun yàgg nañ ko xeex yàgg nañ ko wax def nañ si ay pétition euh, def nañ tout pour entrer avec euh, pour entrer en en en contact avec les avec avec si avec si avec nos autorités pour ñu wàññi mburu mi parce que mburu bi lu mën a wàññeeku la wàññi mburu nag mooy wàññi farine parce que mburu foofu ko farine loolu la ñuy wax seen communication sax ñu ngi wax naan dañu war a wàññi mburu wàññi farine mais boo wàññi mburu mooy wàññi farine euh, leen leen war a xam farine bi euh, c'est pas un produit fini c'est un produit semi fini blé c'est une matière waaw maa ngi di di wax foofu sama patron sama sama sama grand grand Amadou Gueye pour wax ni ko euh, blé bi du du du du du matière matière farine produit la voilà léegi bu fekkee dañoo wàññi mburu lu mën a lu lu nu rafetlu la parce que blé bi euh, boo xoolee en deux mille vingt et un décembre deux mille vingt et un nii la nii la nii la nii woon coow li nu court si affaire mburu mi parce que meññee danoo xëy ni effectivement ñoom danoo war a yokk parce que ku blé bi dafa yokk jamono jooju ñu ngi doon mu ngi doon jar cinq cent euros par tonne cinq cent euros tey nag blé bi mi ngi jar mooy de deux cent euros par tonne noonu lañu koy jëndee donc di simple au dugg wax dëgg yàlla war nañ mën a wàññi farine bi wàccee ko ba si suuf bu ko defee mu reflété wu effectivement ci baguette pain bi hmm. donc lu état bi def nii lu jara saluer la lu jara gërëm la xam ne état bi lu fi nekk nii tey wax dëgg yàlla mu ngi bàyyi xel bu baax ci produit yi ñuy dugg fi Sénégal te loolu am solo la hmm. euh, est-ce que ñu ñu gis ni euh, Mamadou Niang automatiquement bi ñu jëlee mesure bi euh, meññee yi ñoom nee nañ dañuy daal di arrêté seen production naka nga gisee euh, menace boobu nga xam ne mi ngi jógee ci meññee bi ñu ne dañuy arrêté production bi. yàgg nañu menacé te meññee la je ne l'appelle pas des meññee c'est des patrons d'industrie c'est des patrons de minoterie ñu ay meññee ndax pour ñu waxantee dëgg. ñoom 2021 ni leen defoon di menacé xëy arrêté usine bi te buñ ko arrêté duy dëgg du yoon loolu war na auto autosaisir pour ñu jël benn directeur jël décision rek arrêté usine bi pour lan ma koy arrêté te am produit am matière première bi nekk bi mu war a produit war a jaay jaay jamono jooju ministre du commerce dem na foofu si usine yi pour dugg fa tey gars yi ñu ngi doo fa dugg parce que xamoon nañ produit am na fa benn ñaareel aussi bu fekkee ñoom dañuy menacé seen menace yooyu teguwul fenn état bi nag moo war a taxaw loolu la ñuy doyee état pour mu taxaw jàkkaarloo ñoom comme barki démb nu ñu kii defoon euh, suñu mbokk transporteurs yi. Mm-hmm. ba nu taxawee ñoom danoo taxaw def face. parce que mun noo jël loo xamante ni ñu ngi ko doon jëndee dañ ko jëndee cent franc dañ ko jëndee cent franc ñu yokk ko ñu dem te tey di ko jëndee juróom dërëm daanaka duñ ko yokk ñu ko fenn voilà état bi moo war a fort taxaw jàkkaarloog seen meññe te boo xoolee blé bi bu ñuy indi fii Sénégal. Mm-hmm. ñoom ñoo ko fi indi ñoom ñoo koy produire. ñoom ñoo koy jaay ñoom ñooy jaay farine bi te bu nu seetee ba si biir blé bi pertement amu si blé bi dañ si def sept dañ si def euh, cinq ba six types de fariñ dañ ko si def lu nit xamul état bi nag boo xoolee benn type de farine rek la jël mooy farine boulangère moom la wàññi yeneen farine yi lu leen neex mën nañ ko jaayee lu jar a sóoraale la blé bi dañ si def aliment bétail mooy aliment dañ si aliment xar aliment nag aliment fas sa dañ ko si def waaw di si def aliment volaille bi ginaar yi ginaaru pondose ak lépp da koy def si bële yi te ñooñu leen neex lañ koy jaayee état bi taxu contrôle waxu leen li ngeen koy jaayee lii kon pertement amu si dafa fekk kay ñu si nekk duna ay sénégalais dafa fekk tey ñu si nekk yërëmulu suñu population sénégalaise loolu moo tax tey ñu am ñii comme dañuy def seen menace te menace defoon na ko temps si ginnaaw te too ñu mën ko def nag comme lu ma wax benn bande de bande ñoom ñoo ko organisé créé seen benn association ñu dëkk amis ñoom seen biir ñekk ay ay ay étranger nekk si biir di xàccandoo di dóorandoo dóorandoo suñu kaw si ko population bi di dóor si ko population bi parce que mooy dañuy dóor si kaw état bi état bi reculé yëkkati ay milliards imaginons le ministre du commerce Abdou Karim Fofana moom moo taxaw assemblée ni secteur boobu da siy subventionné à hauteur de cent milliards cent milliards yooyu fan lay dugg ay étranger la ko jox ñu génnee ko seen dëkk bi dafa duggaat ñun bu fekkoon sa cent millions da ko jox étranger yi mu jox ko tey mu mu subventionné ko euh, boulanger yi ñu mën a wax ndax Sénégal lañ bokk mais cent milliards ay étranger lañ koy def donc seen menace du menace su dara état moo war a taxaw faire face ak ñoom pour ñu ne leen arrêté c'est comme ça. Hmm. est-ce que côté boulanger yi aussi euh, les conditions son réunies pour ñu wàññi mburu bi comme état bi ni mu ko waxee. waaw parce que xam mburu ko farine xam nga boulanger yi moom moom mooy li ñuy wax rek bu mburu bi wàññi bu farine wàññi ñoom ñu wàññi. moom mun ñoo wàññi te farine wàññeeku wax dëgg yàlla matière première bi la ñoom matière première mooy farine si ñoom ñoom duñ defar duñ defar farine waaw ñi indi matière première bi fii nag di defar farine bi farine bi mooy blé bi ñooñu la lañu war a waxal wàññi nañ ko état bi xool na ba simple parce que état bu demee ba xool ba simple xam ne luy man na wàññeeku wàññi nañ ko naka naka na boulanger yi dem jëndi ah wàññi seen wàññi bi bu ko war a jëndee quinze dix neuf mille cent dem jëndee ko quinze mille quinze mille deux cent et puis ndey kumba hmm. est xam nga benn affaire. waaw ñiy jaay mburu mi ñiy jaay farine est xam nga dafa remise est ce yi xam nañ loolu est ce que bi xam na ni ñoom est ce que def na enquête boo jëndee dix sacs dañ may benn sac mais ndey kumba kuy dem bay bay wàññi bay bay bay def remise est ce que kooku pertement am na si. Hmm. amu si non. kon ñoom li ñu bëgg a gëmloo Sénégalais yi loolu amul. amul ñu ngi def remise di def ay ristourne na état bi def enquête am na yóbbu ay inspecteur foo xool seen comptabilité man rajo laa nekk di wax je suis en direct yoo xam nga man man man lu ma wax kay nëbbu ma ko ñu ngi def ay restoune def ay remise kuy dem bay def remise kay kon kay perto boo jëndee 10 sacs ñu may la benn sac ñoom sac jaayoon ko 19200 jaayoon ko 19200 de. Mm-hmm. moins de ça leen koy loolu lañ déclaré mais sac coûte moins de ça sur le marché loolu yëpp dañ ko war a wax état bi nag moom moo war a taxaw bu mu taxaw na farine bi wàññeeku. mburu yi mën a gis seen bopp boulanger yi bu mburu bi wàññeeku ñoom duñu gis seen bopp et puis ça c'est normal waaw. Hmm. Euh, kon tey jii euh, Mamadou Niang parce que problème bi ça revient souvent c'était le même cas avec le régime de de Macky Euh, mu mel ni moom la ñu bëgg a dundaat ak régime jomaay bi heure su wàññi amee mën ñi taxaw banque seeni yoxo boulanger yi noonu coow li bari euh, pour yow lan mooy solution définitive pour régler sa problème nga xam ne état bu ne jaayee leen temps dañuy jaayee temps automatiquement wax ju bari du si am solution bi du leen du simple la état bi moo war a taxaw uti usine usine moulin teg ko fii Sénégal Yaya Jammeh noonu la defoon ba ko gars yi di fontoo dafa dem uti usine ñëw teg ko ba mu ko tegee bu gars yi génnee fii di jaayee farine ay vingt mille ak trente mille moom mu jaay farine dix mille franc gars yi gis seen bopp benn benn benn solution la ñaareel solution bi aussi état bi il faut mu auditer secteur boobu secteur blé bi parce que secteur bi actuellement français yoratuñ ko daanaka ay américains ñoo si dugg ñooy indi blé bi fii Sénégal américains yi ñoo koy jënd ko jëndee man année bu américains yi année boobu man j'étais en service maa ngi woon en ah, j'étais dans la euh, usine bu ma nekkoon maa ngi nekkoon si si euh, comme on dit si kii stratégique bi laa bokkoon si comité stratégique bi laa bokkoon dañ ni américains yi lii indiwu leen fi xam leen fi indi pétrole bale indiwu leen fi fu nu jaar na dëkk bu nu jaar nii leen koy def dañ koy jaxase ba mu jaxasoo ba dëkk bi tàkk ñu récupérer nànk pétrole si loolu lañ dox mi actuellement nii nii nii li ma ne xam naa ko donc nanu maytu affaire de blé bii état bi moo war a taxaw parce que ñoom américains yi ñoo koy dugal tey Sénégal ñoom ñoo koy jaay boo xoolee tey blé bi tey ñoom buñ koy jaayee fii fii lañ koy jaayee Sénégal usines yi mag yëpp dañuy ñëw si benn usine moo koy indi fi Sénégal boo ko indee daal leen ku nekk mu sedd la moo indi bato bileem wàccee ko boo ko wàccee ku nekk mu sedd la autant loolu amul woon autant n'avait pas de problème ba loolu amee loolu si la commencé indi problème boobu ñoom ñoo tënk ñooñu parce que ñoom dañ leen di lebal beleen ñuy jaay moo tax fu mu leen di xooloo leen di xooloo ñoom ñëpp moo leen tënk loolu nag état bi moo war a casser chaîne de valeur boobu kase ko téye ko xam ne le produit sensible la kon nu mu def ceeb bi dem ba Inde di toppatoo ay bateau de blé na état bi taxaw ferme xam ne secteur bu sensible bu gën a garaaw blé amut ndax blé li ñu ci def dëgg la maa ngi dégg loolu premier ministre Ousmane Sonko di wax naan euh, yàpp bi dafa cher mais il faut mu cher parce que aliment bi moo cher yooyu a xam ci chaîne bi la bokk. te loolu yëpp ñu ngi ko defaree ci blé bi lañ koy defaree donc état moo war a taxaw et fort jàkkaarloog ñi xam ni bu fekkee wàññi nañ ñu contrôler am na produit am na lépp ñu war a jaay ñu refus de vente la c'est interdit par la loi refus de vente c'est interdit par la loi loi bi autosaisir procureur autosaisir ñun de bu ñu taxawee duñu jaay ñun de dinañ taxaw dinañ bind dinañ fa ñëw bu ñu waree bind procureur nañ bind procureur pour ñu directeur yi nekk société ñu woo leen laaj leen lu tax jaay leen farine bu ñu yor ba Sénégal tey man te bu ñu amee problème mburu tey tey ñëppay am problème Sénégal day am que dama la nëbb de Tunisie mburu mburu moom moo ko taal mburu te dañ soo yokk xëy si 10 réseau soo ba tey Sénégal yi ñëpp naan mburu mburu pourtant ceeb a ngi fi leneen a ngi fi mais c'est un produit sensible c'est un produit social dañ ko war a toppatoo bàyyi ko xel bu baax a baax te production bi ñu ngi si produit presque mat boo xoolee tey koor gi 16 millions de baguettes de pain lekk nam kokki bi daara kokki fu may terminer daara kokki bi. Hmm. ñoom ñu ngi utiliser ne 300 baguettes de farine de mburu la ñuy utiliser partout ah mais euh, mburu bi nag ñu wàññi la si juróom dërëm ñaata la si xaalis ñaata la si xaalis presque 300 presque 75 mille francs dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy bénéficier par jour mais loolu dafa am solo am solo si ñoom ñaata la si at bi donc mburu bi fu mu nekk baax na na boulanger yi nag. bañ a nekk les avocats lu may wax sama président Amour Gueye Amour Gueye noo nekk président munoo nekk président pare bu nekk avocat mu ñëw voilà yéen toppatoo leen seen farine wàññi na leen seen farine dem leen jënd seen farine ngeen produit jaay na mburu cent soixante cent cinquante francs pour ñëpp am jàmm. Mmh. mais mais mais dañu seetlu aussi euh, pain bi dafa wàññeeku loolu aussi lu consommateur yi euh, la loo si mën a wax. waaw lu mu si mën a wax rek mooy loolu problème de qualité la de farine. ma ne Kumba boo demee léegi nga génn nga dem ville nga dem jënd benn pain cent cent quinze franc nga dëkk nga dem si banlieue bi comme man mu dëkk si banlieue bi laa dëkk nga dem ba côté jàmm gën nga dem jënd beneen pain cent soixante quinze franc même heure mais mburu yi du nekk benn loolu est-ce que population bi ñu ngi xool loolu parce que tout simplement quantité de farine bi lu leen di jox moo dul benn benn deuxièmement aussi loolu dafa laaj contrôle parce que ñee ñi respecté contrôle ñi respecté wuñ ko dans la banlieue il faut tamit état bi gën a taxaw si les contrôleurs ñi gën a contrôler man assisté naa nit ñuy contrôler ay boulangerie fii mais contrôle bi c'est pas sévère parce que man jël naa récemment si benn select dugg naa fa fekk fa ay pain man maa ko doon peser ma jël lu mat dix pain peser ko mais benn pain matu sax cent soixante grammes ay cent matu ko sax lu tax loolu boulanger loolu tamit teguñu ko fenn boulot bi dañ ne bu jaree cent soixante bu fekkee mën na jar cent quatre vingt dix parce que baguette bi c'est cent actuellement cent quatre vingt dix la baguette bi bu nekk cent quatre vingt dix ba cent ba deux cent grammes c'est possible parce que c'est des pâtons de deux cent trente bu duggee si four après mu wàcc mais loolu bu fekkee baguette bi normal na nekk na baguette de cent quatre vingt dix grammes loolu pain bu normal la pain boo xamante ne nit boo ko lekkee dina xam ne santi na lekk nga mburu mais bu fekkee wàcc na au delà de loolu c'est pas normal te loolu état bi aussi moo war a taxaw moo war a taxaw ni non non non il faut gars yi seen contrôleur yi ñu contrôler voilà. Mm. et puis et puis il y a d'autres solutions yoo xamante ni ñun bu ñu amee chance jàkkaarloog état bi dinañ si gën a waxtaan a ñoom bu ko defee pour pour problème la problème mburu mi mu mu mu éradiquer ko complètement te boo xoolee Sénégal nga koy dégg ah dans les autres pays même les dans les pays de guerre doo dégg ñu problème mburu yooyu de c'est réglé depuis parce que c'est un secteur sensible loolu loo xamante ni da koy da koy téye état si taxaw téye ko boppam comme nu mu wàññee nii farine bi taxaw. pour ay nit yi wóor nit ko xam di ci wax mais mi ngi noonu kon Mamadou Niang ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci leeral yi. merci beaucoup Ndekuma jërëjëf. ñuy fàttali ni Mamadou Niang expert nga en meunier meunier de formation jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax a baax.